maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ak ñëpp ñaan yàlla yàlla na ñu yàlla defal jàmm yàlla defal ñu mucc ak muccale may ñu ko ay déwéni déwén su nëgënu déwén déwén naqar yàlla na mel ne nëgëni ren ah, tey nag ci séri bi laa ñëw muy maajoor ak joor maajoor ak joor série boobu nga xam ne rek moom macha allah day toj dëkk bi man moom ma ko bëgg rek ci sama xol wante nag euh, kii naar moom naar est nit la naar est nit la koo xam ne chaque jour doo arrière tiitoo rafoo yow ragaloo jël bon rek làmboo ko def ko muy sa jël def ko daal jël asib rek teg ci pétrole heure boo xëyee rek jël acide beeg pétrole bi jabase rek kos foo teg acide bi mu dagg ah? kii nit moom man ba ma juddoo ba tey mosuma gis ko ma bone nii ci àdduna ndax bon munta paase nga jël sa doom di ko sacrifier ngir lan ngir xaalis moom day jaay doomam comme day jaay doomam kay na taxaw ne maa boo soxlaa sama doom ñaata laa koy jaaye wala mu wax ko joor peer ah muy dëgg bu fekkee sëy moom xaalis ko lal loolu moom sëy ba amatul sens ah mun day wax dëgg yàlla man naa moom wax dëgg yàlla man jaaxal na ma bon na ne moom musta am ci àdduna kii moom musta am kii day yàq sax société bi waa Xew TV maa ngi leen di di leen nuyu kontaan ci waxtaan yi ma jotoon na déglu kontaan naa ci torop dëgg yàlla série moom neex na torop papa maajoor moom nit ki loo nekk ak moom moom di nga bu yàggee muy sa sœur bu yàggee di nga ko xam mais sa sœur day def <laughs> ou bien day xam sax bàyyi ci biir maajoore dama koy mere ci benn côté xam na bu baax bàjjenam lu mu sañ ah ak euh, doomu bàjjenam kon kay moom war naa mën a xam bu baax a baax a baax fu muy teg tànkam ndax loolu laa mën lu may wax pour l'instant ba ci kanam